yaa ma ko ma mari seen man noonu laay doxee ba tey jéem a xam nit ki woo woo fexe xam moom mooy kan moom it yow ki nga ku ne lii sa wàll ci xam lii mu bëgg moom lii nga ma ko daan ma mari seen noonu laay doxee ba tey kii ma la xam nit ki woowoo fexee la xam moom mooy kan moom it mu xam yow ki nga doon ku xam lii sa nekk rek ñu ngi lay nuyu nag ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci sangu-sang yi di leen wax na leen euh, je vais très bien yéen tamit di leen laaj est-ce que ci loo leen ne <laughs> est-ce que yéen a ngi ci jàmm rek laa bëgg a xam euh, sant nañ yàlla bu wër nag julli ci sangu-sang yi euh, ñaanal suñuy waajur yàlla xare leen àjjana di ñaanal sëñ Muntaxa Bachir yal na fi yàgg lool te wér Mbàkke balay sa buré di dugg ci kër kilifa diine yépp di leen ko ñaanal yàlla na leen fi yàlla wàcc bañ mën di ñaanal Sénégal gi yépp nekk ci jàmm ay ca mi ngi noonu dañuy wéy ak yéen rek ci li nga xamante ne nii nag mooy féexal seeni xol fàttali leen nag ne leen euh, Tunisie rendez-vous bi suba lay jeex ñi nga xamante ne ni yëguñu ko woon te di ma topp ñu yëgee ko ci ñun xam ngeen ne euh, fi mu ne ñoom bëggatuñoo dëkk ak euh, émigré bëggatuñoo rawatina nit ku ñuul euh, xam naa loolu xeetu racisme la raciste nag bu ñu ko waxee. ne euh, fi mu ne ñoom bëggatuñoo dëkk ak euh, émigré bëggatuñoo rawatina nit ku ñuul euh, xam naa loolu xeetu racisme la raciste nag bu ñu ko waxee presque foo dem fekk ko fa ñu bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax yéen ñi nga xamante ne yéen a nekk Tunisie hmm, ngeen waajal ñi mën a ñëw ñëw ñi nga xam ne bëgg nañoo ñëw ñëw ak ñenn ñi nga xamante ne bëgg nañoo ñëw mais amuñu moyen pour ñëw suñu ay mbokk ñi ngi fa suñuy xarit parce que sénégalais fépp fu mu di nekk rek dañ war a xool nakal la ñuy def ba mu am jàmm ak salaam hmm, gis ngeen geste bu rëy boobu Youssou nduur def démb euh, ca ambassade turki ba summi lu mel ni summi lu yem ni yëreem euh, daal di ko jaay ay millions yu baree baree bari ànd ceeg ay nawleem jël xaalis boobule dimbalee ko suñu mbokk jullit yi nga xamante ne ña ngay woote wallu foofu la ca Turquie nee naa ko defatina lu rëy ànd ceeg ay nawleem xam naa dinañ ko xool léegi bu fekkee ne laasana euh, pare nga mën nga ñu koo jox ñu xool ko ba pare euh, fàttali ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk foofu la ca yi te war a ñibbisi ak ñi nga xam ne bëgg nañoo ñëw te mënuñoo ñëw seen i mbokk nañ leen woo wala seen i xarit jàppale jàppale leen bu baax a baax a baax a baax ci euh, seen retour euh, Tunis Dakar euh, ñuy ñaan tamit état bi bu ci mënee jàpp bu baax parce que dëkk yu baree bari tàmbali nañoo dem jëli seeni doomi réew kon ñi ngi ñaan président Macky Sall président de la République gis nga geste bi Youssou Ndour def démb ca ambassade Turquie nee naa ko waxoo waaye yaa ngi jëf mi ngi nii summi na yëreem devant tout le monde daal di euh, euh, euh, teg ko ci table bi jaay mbub ma lu toll ci huit millions cinq cent su ma juumul jàppale ko ñi nga xamante ne ñooy suñu mbokki jullit ya nekk ca Turquie di ñaan ndimbal parce que la xew Turquie umpul umpul kenn te ay jullit lañ ni ñun Youssou Ndour nag def lu rëy loolu le ànd ceek ay nawleem rakkam ku ci mel ni El Hadji Mamadou Diouf El Hadji Ousseynou Diouf El Hadji Diouf it su mi ne mayo ba daal di ko jaay lu toll ci juróomi million moom itamit Euh, jàppale ci ñi nga xam ne ñooy waa Turquie gis nga Sénégal ma ngay jàppale naar ya ca Turquie suñuy mbokki jullit waaye tamit gis nga Tunisie ña ngay sonal euh, sénégalais yi foofule ca Tunis kon nag yéen ñi nga xam ne am ngeen mbokk tunis Tunisie préparé leen ngeen jàppale seen mbokk yi fa nekk bëgg a ñëw Euh, te mënuñoo ñëw ay ca dañuy dem rek euh, waajal li nga xamante ne mooy émission bi euh, di leen ci bëggal saa su nekk waaye di ci gërëm remercier ki nga xam ne moom laa àndal muy Adja Abi borom cuub yu rafet yi ci kanam tuuti dinañ ñëw ci numéro téléphone am Kati Kati ah kooku lu ko dal Abakara si njaga kër gi il faut que njaga di toogal boppam fii xasoo na tey ay ca mi ngi noonu dañuy dem rek xoolaat euh, euh, xoolaat euh, ñu ànd ak réalisateur bi ci bi ci régie bi bu fekkee mën nañoo mayaat ci looleen ne di leen wax na leen Samba Peuzzi nag mi ngi waajal événement bu rëy rëy rëy foofu la ca Montréal nu ñuy wax Canada Montréal Montréal Montréal petit jéppi na ma nee na ma defal lu neex ay ca Samba Peuzzi ma ngay waajal euh, soirée bu rëy rëy rëy foofule ca euh, Canada yéen nag suñu mbokku sénégalais yi nga xam ne yéen a nekk euh, Canada Canada sedd na ñu indi gaa Marème Gadji Halima Gadji mooy Marème bu nekkoon ci un maîtresse un ma maîtresse un homme marié maa xalaa dama déconnecté man du ma seet télé ah Halima Gadji nag ñi ko bëgg bari na Canada ñi ngi koy xaar ku ci mel ni Samba Peuzzi tamit dana dem foofu la ci kanadaa bégal leen kon waaj leen Samba Peuzzi moom moo woy lii may waaj a teg ci loo leen ne ñu ñëw déglu discours Youssou Ndour bi am na solo parce que nee naa ko moom at ba at benn yoon lay wax mooy góor gi ci ruq bi nee naa ko jëfati nga li ngay jëfa ëpp li ngay wax ñu seetaan Samba Peuzzi ci loo leen ne daal di sa kër ubbil bunt yi nu gisee kon xol gisee mu guddi rek lañu daan dox waaye léegi xàmmetuñu suba ngoon guddi ak bëccëg live laaj xale ñoom itamit euh, ci lan la ne kati bu fekkee ne mën nga préparer invité bi ak micro am parce que fi mu nekk nii temps bi bariwul dañ ko ciy daal di dugg rek bu ñu mayee xaalis ak euh, cheveux naturel bu leen fàtte ni euh, greffage yi ay perruque la dañuy waajal kii sama retour na ko dindi sama retour <laughs> ah. ah déedéet déedéet déedéet lan la yow Ibou Cissé ça va sa kër nga fanaan est que façon regard bii nur woo ko génn sa kër de ah waaw baax na bay leen téye seen jëkkër yi man sax ci lu ma ne <laughs> yal na ma yàlla baal sama xol bi neexul tey parce que da ngay xool geste bu rëy bi Youssou Ndour def démb di jàppale suñ euh, mbokki jullit yi nekk Turquie tunisiens yi ñëwati di sonal étranger yi nekk Tunisie ñu dem déglu nag discours Youssou Ndour boobu la defe am na lu mu wax euh, pour euh, li nga xamante ne euh, moom la def démb ànd ceek ay nawle sénégalais foofu la ca ambassade turque bi le temps que ñu koy déglu sama invité bi installé wu préparé pour bégal leen ci loo leen ne ma ñëw nag dugg ci Facebook live bi maye ay loxo juróomi junni ak ay cheveux naturels ay perruques yu mel nii bu leen fàtte ni perruques yi ku ko bëgg rek am na salon Ange Amélia borom institut Amel Beauté dem leen fa ngeen xool ko ñu déglu Youssou Ndour ñëwaat ay ca bu fekkee ne euh, euh, yow mi ci rési bi Youssou Ndour bi jàppandi na nga jox ñu ko dañ leen di fàttali rek ne leen jëfati na li ko jëfloo mooy euh, Turquie di suñu ay nawle jullit nekk ci tiis woote wallu état bi yónnee woon na fa ay millions après état bi sëñ Mountakha Bachir mi nga xam ne yoonu lislaam lay euh, lay lay lay lay lay jàppale lay xeexal ci la nekk looloo ko ñor ah defkatu lu baax ku mel ni sëñ Mountakha Bachir yàlla na ko fi yàlla bàyyi ak kilifa yim àndal yëpp di liggéeyal yoonu euh, Seyduna Mohamed bi euh, sëñ Mountakha yónnee woon na fa 100 millions waaye après sëñ Mountakha tamit bu leen fàtte ni suñu. Euh, suñu euh, sapeur pompier yi ñoom tamit demoon nañ jàppale ji waa Turquie defe naa sax ñibbisi nañ alhamdulilah waaye tamit euh, macha allah Youssou Ndour mi nga xamante ne nii bu jëfee rek ngeen yëg ko ndax du def lu dul jàmm jëfatina démb ànd ceek ay nawleem ñu dem déglu Youssou Ndour ñëwaat ci plateau bi léegi <laughs> lii nag yàllaay fay te yàlla na ko yàlla fay mu ñëw ci suñu réew. à travers madame l'ambassadrice euh, présenter nos condoléances et Euh, pour euh, les blessés et prier aussi pour que cette situation où le monde entier s'est mobilisé soit maîtrisée le plus rapidement possible. Ce sont des moments très tristes où on sent que l'humanité est, est touchée et la solidarité fait face. Et euh, je voudrais vraiment, à travers cette visite-là, euh, attire toute notre compassion et euh, nos prières pour le peuple turc et syrien aussi, euh, toutes les personnes qui ont perdu la vie, que Dieu les accueille au paradis et que tous les blessés euh, soient rétablis le plus rapidement possible. Euh, solo waaye tamit euh, saa yu waxee euh, mu am solo lool def na li nga xamante ne mooy lu ëpp yéeneem def na li nga xamante ne mooy yéeneem di ñaanal ñi nga xamante ne ñoo gaañu ca turki ak ñàkk seeni bakkan ñi yàlla gaaw yëkkati leen nu mu gën a gaawee ña ca def suñu borom xaree leen àjjana te mu gëj fa te bañ a am ci suñu réew mi nee naa la loolu mu def ci lu baax suñu borom dina ko fay ci njabootu Sénégal. Eh, Youssou Ndour a def dañ ko war a ñaanal yàlla na ko yàlla fay ci sa njaboot waaye sénégalais yi la defal kon jëf ju rëy joojule mu ànd ceeg suñ xalif général ànd ceeg suñ président réew yàlla na yàlla jël jëf jooju ful ko mu dal ñu ñun sénégalais yépp di ñaan it Tunisie la fa xew yëg ngeen ko délai bi suba lay jeex képp kuy sénégalais dawal nga ñëw ñuy ñaan dimbali ci état bi ñëpp a ngi daw di jëli seen doomi réew Tunisie ñi ngi ñaan euh, président Macky Sall mu daw jëli sénégalais yi nga xam ne bëgg nañoo ñëw ña fa nekk it te amuñu moyen seeni mbokk nañ leen woo jàppale leen parce que yéen ma gën a xam àll dafa metti rawatina àll bu ñu lay fitnaalee ñu déglu invité bi lan la wax ci sénégalais yi tey ci samedi bi pour ngeen kontaan dawal yow la ñëpp di déglu de. yéen ñu am xew ci semaine bi pare ngeen ndax kii daa busy de xale bu busy laa invité tey kat yi loo wax validé nga jëm ak mën ba pare neex xale bi de géew bu mu taxaw toj fa xale bi ngi yëngal jamono booy bi nag kenn du leen ko présenté moom la ñuy bàyyi mu présenté boppam may leen ko mu defar micro am ndax toogagul bisimilaay cat jàpp ko <laughs> ah ku jug ci yow booy ay <laughs> ca dañuy wéyal rek continuer di leen fàttali rek ne leen yéen a ngi ci émission euh, seetu bi euh, mooy émission bi àndandoog yéen chaque samedi 16h ba 18h pour mën di wàcce seen stress lool dong moo ko tax a jóg ak di leen